bu dee caution bi nag maanaam li ngay teg pour mën a dem ci élection yi dañ ko euh, teg ci fukki million ak juróom loolu li ma ciy wax rek mooy bu ñu paasee bu ñu paasee yii war nañ ci waxtaanaat ndax réew mi kat war naa romb fu nit di jógee rek même bu nekkee ministre ne lii laa bëgg surtout bu fekkee li mu bëgg dafa laal euh, ëllëgu askan wi ndax élection yi caution boobu am na ci solo ndax bari nañ ñu nekk ci seen i gox-goxaat am yéene bu baax a baax te amuñu fukki million ak juróom te fukki million ak juróom ci façon élection bu nekk la bu fekkee ñaari yi nga bëgg a bokk fanweeri million la loolu nag dafa mel ne euh, ñi nga xam ne ñoo am alal ñooñu lañ jàpp ne ñoo war a jiite te loolu kenn du ko nangu kon lii ministre bi def jël arrêté nit ñi ànduñ ci bi mu wootee waxtaan wante dafa déglu nit ñi ba pare opposition bi waxoon juróomi million wala lu ko yées mu dem daal di tëju bind fukk ak million juróom loolu baaxul war nañ ko changer euh, xool beneen façon bu ñuy bu ñuy fixer caution bi bu ñuy tegee caution bi kon lii yëpp dafa bokk ci li nga xamante ni war naa tax ñu jóg taxaw temm nag ngir changer mbir mi defalu ma publicité professeur Bouba Diop wante taxaw temm war nañ koo def tey ngir changer ni réew mi doxee caution a été fixée à 15 millions, ce qui est une aberration dans un État où la participation doit être démocratique. Euh, ne pas exclure des candidats qui peut-être n'ont pas les moyens, mais ont l'ambition de développer leur territoire, ça devrait faire partie euh, des objectifs de la démocratie. Nous pensons que c'est un abus, que la façon dont la concertation, la soi-disant concertation a été menée, euh, c'est une façon tronquée. Le ministre s'est enfermé pour prendre lui seul son arrêté sans le consensus qui a été allégué au départ, puisque l'opposition avait de toute façon proposé 5 millions ou moins de 5 millions. Nous pensons donc que cette façon de prendre des décisions doit être revue et cela fait partie des combats futurs que nous enclencherons certainement. Donc euh, le suffrage censitaire n'a pas droit dans ce pays. Euh, il est banni partout au monde où des démocraties modernes sont en place. Donc nous devons combattre cela.